ñu ngi dalal tey altine ñaar fukki fan ak ñett weeru novembre Modou Diagne Fada mooy directeur général bu Sonacos bëccëgu tey bi nag ci la ñuy door euh, campagne bi ñeel njaayum gerte gi euh, mu jiite Sonacos euh, directeur ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinal bi dooree ak rek matukaay yi ngeen jël te Sonacos ngir campagne bi aw yoon ci seen wàll. waaw maa ngi lay nuyu Fatou maa ngi nuy tamit suñu mbokk auditeurs yi ñuy topp. Euh, alors yaakaar naa ne li ñu war ñun waa Sonacos ci campagne ñu gerte euh, ñaar la bu njëkk bi toppatoo xaalis ba xaalis bi yemb loolu ña nga ca ñaareel bi mooy fexe ba bërëb yi nga xam ne moom la ñuy euh, décharger gerte gi yi tamit ñu defar ko ba nga xam ne ku ñëw rek da nga mën a décharger sa gerte alors bu njëkk bi muy wàllu financement bi moom liñ ci waroon def def nañ ko parce que xam ngeen ne daaw bi ñu tollee heure bi ITFC muy banque bi nga xam ne moom mooy lebal Sénégal at mu jot lu muy jënde gerte gi joxoon nañu lu mat ñeent fukki million ak juróom ci euro waaw ah, bi mu ñu ko joxee nag dañ ne bërëb rek mu daal di génne vingt cinq millions teg ci taabal ji ñu daal ci tàmbalee liggéey waaye finalement vingt cinq millions yi sax mujj ñu ko jeexal ah, ndax daaw campagne bi ni mu demee ci Sonacos ah, dafa doyoon waar ba tax trente mille tonnes sax liñ jënd matu ko donc 25 millions yi ñu joxoon desoon na fi lu mat 6 millions et demi euros yu nga xam ne jot ñu woon ko utiliser donc yooyu mu ngi fi yooyu ci la ñuy war a tàmbalee euh, tey ci suba képp ko nga xam ne indi nga sa camion ak foo ko mën a indi ci bërëb yi nga xam ne moom la Sonacos di toppatoo boo ñëwee dinañ la fey ñaar fukki millions yi nga xam ne moo desoon ci ñeent fukki yeeg juróom ñaar fukki millions yooyu incha allah fekk ay bis feek ñuy dugg ci décembre bi lu mu gën a yéex yéex dana agsi ci taabal ji su ko defee mu nekk ñaar fukki million ak juróom benn ak lu topp yu nga xam ne ci ay euro yu nga xam ne Sonacos dana ko dana ko am te loolu bokkul ak nag convention bu bees bi nga xam ne euh, monsieur le ministre Amadou ot mu ngi koy négocier ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa euh, ITC convention bu bees boobu pour campagne 2020 2021 bi boobu ñeent fukki million la ci ay euro alors donc boo leen boolee yëpp yëpp war naa nekk 66 millions et ci ay euro mu war a toll ci ñeent fukki milliards ak ñaar jëm ñeent fukki milliards ak ak ak ñett ci CFA alors nekk lu nga xam ne loolu lu am solo la te bokkul ak li nga xam ne moom la xaar ci banque yi banque locale yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ndax lu ma juróomi banque bind nañ leen pour ñu lebal ñu kenn ko nekk lu toll ci juróomi juróomi milliards kon wàllu xaalis moom yaakaar naa ne duñ ci am problème te ñun bu ñu commencé jënd bu ñu ba ci kanam dañu commencé jënd transformé def dëwlin def euh, euh, tourteau commencé waat ko jaay ci marché bi mën a am mën a am xaalis cash bu nga xam ne daañu ko mën a jëndewaat gerte bu ko laajee donc affaire financement moom loolu yem rek. bon payé ak lu ci aju mën nañu koo tegee ne. non non non euh, du du du du waxuma la bon impayé. mais waxuma la bon impayé waxuma la rupture de paiement waaye retard de paiement sax bëgguñu ko am. waaw teg teg gi lay doon daal mu nekk teg teg gi ku ñu jox sa gerte tey 48 cent 72 heures ñu jox la sa. xaalis lu mu lu mu lu mu yéex yéex alors wàllu euh, site de réception yi tamit. Euh, li ñu defoon daaw jël benn site de réception yóbbu ko Tamba ngir waa Tamba jël beneen yóbbu ko Kolda loolu tamit dañ koy reconduire. ngir gën a mën a soulager suñu site yi nga xam ne moom la ñu amoon euh, moom la ñu amoon euh, daaw ak daaw jékk ci wàllu ci wàllu gerte. ndax site de réception yi bu fa camion yëpp dajee mën na indi léeg-léeg ay ay ay tolof tolof. donc yaakaar naa daal noonu li ñu waroon a def ci campagne bi. Euh, def nañu ko. léegi ban objectif ngeen di yootu euh, ci campagne bi jëm ci gerte gi ngeen war a jënd. waa objectif bi nag ren fixé wu ma benn objectif de nangami tonne la ñu war a am ñun dañ ne lu ñu fi indi ci gerte rek mën nañ koo jënd maanaam bu ñu demoon tey tey tey tey maanaam jekk nañu daal ba Sonacos. mën a jënd quatre cent mille wala cinq cent mille tonnes mais duñ fax ne euh, euh, lii lañ bëgg a atteindre. ndax lan la leen daloon daaw. waa parce que xam nga stratégie la rek xam nga dañu am euh, dañu am ak léegi ñu donc dañu nekkoon ci marché bi. ñee na fi nekk moo tax yu bari léegi ñu koy bëgg di di di di révéler mais daal jekk nañu pour que. ñu jënd lu maximum de tonnes de graines de graines d'arachide. est-ce que itam jekk ngeen euh, ci jàkkaarloo concurrence bi ndax daaw Sonaco sonn na wax nga ko euh, ngir am euh, li nga xam ne moom la yéene woon am ci gerte ndax chinois yi dañu ñëw fay xaalis bu bari gerte gi yëpp daanaka ñu jënd ko yéen ngeen obligé sax doon yokk prix nga jug dugg ci biir àll bi di wut gerte est-ce que waajal ngeen situation yu mel noonu. waaw mais en tout cas déjà le fait que ñu yëkkati jéggi. yóbbu ko juróom lu baax la. te loolu vraiment ñu ngi ciy ndokkeel président Macky parce que nag euh, baykat mën a jël kilo gerteem jaay ko juróom fukk mus fi am ba Sénégal di Sénégal ba léegi ba Sénégal seqee gerte ba léegi ak diggante ba ni mu yàggee ren jii la fi kilo gerte mës a jaar juróom fukk officiellement mu nekk lu nga xam ne lu rëy la te loolu yaakaar naa ne béykat yépp dañ ci war a maase sant président Macky Sall euh, ndax nag buñ doon topp prix économique bi rek xañ na gerte gi àgg foofu alors. donc muy jar juróom fukk loolu lu am solo la alors ensuite ren ñu ne taxe am na maanaam képp ku nga xam ne da nga jënd benn kilo gerte ba ko yóbbu bitim réew da ci teg juróom benni dërëm loolu tamit lu am solo la ren tamit ma dégg ministre de l'agriculture et l'équipement rural mu ne rapatriement des recettes maanaam exportateurs yi dañ ko war di def loolu tamit lu am solo la parce que loolu mooy tax keesu état bi di mën a gis boppam ci ci exportation donc jàpp naa ne loolu yëpp dina gën a mën a organiser lii nga xam ne mooy campagne de commercialisation bi képp ku nga xam ne da nga bëgg a jëndi gerte ci biir euh, àll bi nga dem jënd ko ci point de collecte officiel yi nga xam ne seignant moom moo leen identifie indi ko usine ñu fay la sa sa sa sa xaalis képp ku nga xam ne da bëgg a exporter nga jaar ci yoon bi nga xam ne moom lu gouvernement bi tëral su ko defee nga mën a exporter sa sa sa gerte jàpp naa ne mbir mi noonu rek la la tëddee donc ren taxawaay bi nga xam gis nañ euh, ministère bi am ko nekk na taxawaay bu nga xam ne taxawaay bu bu bu am solo la bu nga xam ne war naa mën a may képp ku nga xam ne da ngay ci filière bi moo xam producteur bi nga moo xam opérateur bi moo xam industriel bi moo xam exportateur bi nga nga gis sa bopp ndax yaakaar na tam loolu mooy dundal filière mais filière bu ñii dee gis seen bopp ñeneen ñi duñ gis seen bopp rek bu yàggee filière bi day day day day day day nërmeelu. d'accord mais yéen a ngi yéen a ngi bàyyi xel concurrence bi ak li leen daloon daaw. waaw mais xam nga bàyyi xel bi mooy comme li ma wax rek ñun nee nañu gerte gi njëg njëg gu ñu ko mën di mun mën di mun di jaay ci marché bi ñun d'accord nañ ci ñuy wax la loi de l'offre et de la demande bu fekkee ne loolu mooy li nga xam ne mooy structurer marché bi ñun amuñu ci benn benn benn problème. pare ngeen foofu teg ci juróom fukki dara jënd non affaire xam nga déjà Sonacos bu ngeen ko xoolee Sonacos du jëndee juróom fukk. opérateur bi mooy jëndee juróom fukk ci baykat bi mais ñun dañuy tegal opérateur bi marge tegal transporteur bi marge. nga xam ne ñun gerte gi lu mu lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt mën nañoo dikk deux cent soixante seize virgule cinq loolu mooy njugu njëgu Sonacos voilà d'accord ba tey ci Sonacos ak euh, usines yi nga xam ne euh, nekkoon nañu ci ay jafe-jafe wala installation yi ngeen waxoon da ngeen koy soppi yeesalaat yenn yi fu ngeen ci toll waa ñu ngi ci xam nga euh, amoon nañu sax benn plan bu nga xam ne bu 16 milliards la mais malheureusement ak pandémie bi ak Covid 19 bi ñu mu waroon parce que c'est normal état dafa am ay bi affaire bi pandémie bi xëyee na xës suñu kaw mu nu woon fi nekk di di wax ay plan de relance ak parler nañ mucc lañ taloon alors mais plan boobu mu ngi fii euh, mais teewul ñun suñu wàllu bopp ak euh, li nga xam ne yàlla war wërsëgale du ko lane euh, l'année dernière ba ñu am état financier yu nga xam ne yu propre la muy 2019 ñu am jógee chiffre d'affaires bu 2018 bu 14 milliards am chiffre d'affaires bu 41 milliards jógee tamit déficit bu moins 7 milliards en 2019 am bénéfice de 370 millions euh, tax na ba ñu mën a yaxanal lu nga xam ne dañ koy dugal ci investissement lu mat deux milliards ndax dafa bari ay ateliers yu nga xam ne dañoo amoon solo trop ci biir sonakos te doxatuñu woon muy atelier extraction bi ak atelier détoxification bi ba nekk Njaareem ba nekk Kaolack pardon ak ba ya nekk Ziguinchor yëpp yan doxatu ci woon euh, ensuite suñu autonomie énergie ñun ñoo daan defaral suñu bopp énergie mais at yi yëpp dañu branché waat ci réseau énergie bu Sénélec mais ren euh, dañu bëgg fekk 31 décembre loolu yëpp euh, mën a mën a mën a deñ ñuy defaraat suñu bopp énergie. ak yeneen ak yeneen yu sew sewaan yu nga xam ne mu ngi ci biir euh, usines yi te ñu bëgg koo yeesalaat te ñu bëgg koo réhabilité yooyu yëpp ñu ngi ci liggéey ak 2 milliards yooyu nga xam ne ñun ñoo ko yaxalaloon suñu bopp di ko ci def waaye nag Sonacos ak ni bërëb yi màggete. 2 euh, milliards bu ci dara euh, alors moo tax ñu ngi liggéey ak yeneen partenaires ak yeneen euh, structure pour mën a am ak état bi tam ci boppam bu ñuy jàppale pour ñu mën a am taxawaay bu nga xam ne daal bu ñu nee ba ci kanam daañ gën a mën a yeesalaat li nga xam ne si mooy mooy mooy mooy Sonacos. tey jubluwaay président ci Sonacos lan la yaa ngi koy wax sànq ne dalal na la te Sonacos tam am na taxawaay bu mu war a am ci wàllum industrialisation. waaw xam nga xam nga président Macky Sall moo moo tëgg plan Sénégal émergent plan Sénégal émergent am wala mu ñuy wax cap sur l'industrialisation et la réindustrialisation xam nga euh, Sonacos bu dee industrialisation mu nga ca bu dee réindustrialisation sur société bu màgg la bu nga ne war nañ ko euh, euh, remettre sur les sur les sur les rails moo wax i tamit PAP 2A programme d'action prioritaire accéléré et ajusté foofu tamit am ay volets produire consommer local transformation locale ak mbir yu bare bare xam nga yooyu yëpp kenn mënu ko tudd te sa xel du dem ci du dem ci du dem ci euh, Sonacos te xam nga président Macky Sall moom moo jël lu mat 20 milliards mu yokk ko ci int euh, dugal ko ci intrants yi semences yi ak matériel agricole lu dëgg pour pouvoir booster la production tey booster nañ production waaw ah mais boo booster production ba pare yi tamit te nga bëgg production boobu ñu transformer ko ci réew mi il faut nga booster la transformation te pour nga booster la transformation mënoo lu dul booster lu mel yu mel ne Sonacos yi nga xam ne dañuy intervenir dans la trans dans la transformation donc bi mu ñu recevoir ñu waxtaan ci ak moom mu euh, yabal ñu aussi ci ministre des finances et ñu waxtaan ci ak moom euh, donc état bi mu ngi ci ay ay ay ay ay ay mbir ay taxawaay ay stratégie pour seet nu mu gën a mën a jàppale Sonacos ba taxawaay taxawaayam gën a mën a gën a mën a dëgër bu gën a mën a jouer rôle am ci PAP 2A mais aussi ba mën a gën a euh, jouer rôle de façon général dans le plan Sénégal euh, émergent parce que xam ngeen ne pandémie la ñu jógee pandémie bi ñu jógee euh, dafa man suuxal yenn euh, yenn yenn activités yi te itamit fi mu toll nii Sénégal dafa bëgg a gaaw reprendre maanaam reprise économique dañu bëgg mu gën a gaaw au niveau du du Sénégal te levier bi ci ëpp solo bi ñu war a appui mooy agriculture ndax ren yàlla may nañu nawet bu baax yàlla may nañu ñu ngi xaar ay production record mais loolu yëpp nag ngir ñu mën a gën a mën a am valeur ajoutée dañ leen a war a euh, dañu war a jàppale kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo mën a jël matière première boobu ñu transformer ko en huile en tourteau parce que loolu mooy indi richesse ci biir koom-koomu koom-koomu koom-koomu réew mi mais kenn du jël rek ay matière première brute di leen exporter te fekk booba xañ na rombo say capacité de transformation bis boo rombee say capacité de transformation nag bu boobaa euh, li nga xam ne moom mënoo ko transformer xaj na mën nga koo jaay noonu. alors ñu wax ci wàllu politique euh, ban gis-gis nga am ci ubbeeku bi nga xam ne président euh, dal na koy def ci gouvernement bi ak ci mouvance bi ñu gis ku mel ni Oumar Sarr tey mu bokk ci gouvernement bi Idrissa Seck itam ñëw ci mouvance présidentielle bi nekk président CSE. mais xanaa di ko rafetlu parce que loolu tamit lu lu baax la président Macky Sall ko war def. moom yàgg na tàllal nit ñi loxo kaay leen ñu ànd euh, téyandoo réew mi kaay leen ñu ànd liggéeyandool suñu suñu askan. alors euh, ba mu ko defee euh, at ma la ñu passé 2018 ñun dañoo demoon wuy ji ko ne ñun dañu ñëw jàppale la pour mën a bokk ci ñi lay fal comme ça bu ñu bokkee ci ñi lay fal suba cër boo ñu jox kenn wax ne mérité wuñu ko ndax jël nañu risque ànd ak yow nga wuti ba nga wutee mënoon ngaa am tout comme mënoon ngaa. ñàkk mais àndoon yow quand même alors donc ñun gisoon nañ yoon boobu bu yàgg euh, xam nga souvent nag léeg-léeg euh, nga teel a am dëgg euh, day indi ay critiques yu bari alors donc bu ñu bu ñu gisee yoon boobu bu yàgg doxal ko ñu dem ba jëmm jamono ñeneen gis yoon bi ñu fekk suñu ci mais duñ mën lu bég ci parce que loolu mooy noonu mooy àdduna donc tey ñun dañu bég ci li nga xam ne président Idrissa Seck ñoom Omar Sarr def nañu ko ñuy ñëw ci weti président Macky Sall parce que quand même ñun dañoo wane rek ne ñoom seen bopp ne soxoruñu parce que ñun ñëpp ñoo nekkandoon ci wetu Ablaye Wade biñ nekkee ci wetu Ablaye Wade tamit dañ doon jàng politique ci wetam mu nekk sunu sunu sunu sunu kilifa kenn ku nekk ci ñun yorewoon say ambition bopp. mais bu ñu demee ba gis ne ñun ñi ci nekkoon ci wetam. kenn yàlla simpi ko ci. samp ko mu nekk njiitu réew mais ñun ñëpp dañu war a dañu war a jóg jàppale kooku pour loolu dëgër. pour loolu gën a jëm jëm jëm kanam. kon euh, maa ngi félicité bu baax président Idrissa Seck ak président euh, Omar Sarr ci courage politique bi ñu am ñëw fekk si président Macky Sall moom tam ma koy ndokkeel ci gis-gis bi mu yàgg am ne euh, réew daal li koy téye lu loxo yi bari bari doyul. jaaree ci itam def retrouvaille. waaw retrouvaille waaw retrouvaille famille libérale kay léegi moom boo xoolee en tout cas ñi tax ñuy wax famille libérale ci Sénégal. ñi tax maanaam ñi ñi gën a fés. tey ñi gën a fés personnalité yi gën a fés ci famille libérale ci Sénégal ñëpp a ngi ak président Macky euh, genn wàll gi daa genn euh, benn wàll ba boo fa demee wax dëgg yàlla gisatoo fa personnalité buñ mën a identifier comme une personnalité libérale mu xam luy libéralisme mu xam luy soppi mu xam luy euh, luy luy philosophie wala leneen ak leneen ak leneenu bu bu bu libéralisme donc yaakaar naa ni daal ñi gën a fés. ci wàllu libéralisme tey jii ñu ngi ci wetu président Macky Sall donc yokkaak famille bi mu ngi booloo ndànk ndànk ndànk ndànk loolu nag yàlla na yàlla na dëgër euh, yàlla na sax parce que gëm nañ ne njariñu Sénégal la gërëm nañ gëm nañ aussi ne njariñu suñu wirdu politique la. yaakaar nga fekk diir Ablaye Wade ñëw bokk ci. ah boobu nag quand président Wade man bëgguma ñu koy boolee ci suñu affaire politique président Wade mag la président Wade suñu kilifa la président wadd moom tey amatul ambition politique. pour nekk président pour nekk maire pour nekk lii moom bu ñu ko dugalati ci suñu affaire débat. waaye réaction wam bi euh, ànd bi amee itam ñu bari gis nañ ko. waaw mais moom daal man daal man daal président wadd moom. Mm. Euh, man man comme li may faral di wax rek man daal euh, moom jàmm rek laay mën a wax ci moom yàlla na ko yàlla may gudd fan yàlla na ko yàlla may wér moom lu mu def baax na lu mu deful yi tamit baax na. <laughs> noo bëgg a def it baax na alors ñu jeexal ak sa yéene ca Darou Moussi noo ko fas yéene jëmmaale ci élection locale yi ñu waa waaw Darou Moussi fa laa dëkk fa laay voté bon mais euh, mosaguma nekk euh, maire ba foofu euh, ka fa nekk maire nag sama rakk la. nekk maire itam nekkul sa xel. ma nekk ka fa nekk maire sama rakk la muy ma Diop Bité ci parti bi la bokk yaakaar naa ne ma ngay def liggéey bu am solo ma ngay am taxawaay bu am solo ma ngay liggéeyal dëkk ba. Euh, yaakaar naa ku mel noonu soo ko amee ci dëkk ngeen bokk parti mu nekk sa sa rak doo mën lu dul euh, jàppale ko euh, alors xaj na maa ngi nekk président conseil départemental bu bu Kébémer loolu tamit cër la tey jii 2014 ba léegi maa nekk président conseil départemental Kébémer ñu ngi jëmaat ci ay wote wote conseil départemental bon buñ ci àggee daañ toog waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal muy waa majorité présidentielle euh, waa benn Bokk Yaakaar bon bu ñu gisee ne wax na maa mën a jiitewaat euh, list bi boobu baa duma ko bañ. jërëjëf Modou Diagne Fada moom nañu mbégte dalal la ci plateau matinal Rewmi FM tey euh, bëccëg bi nga xam ne ci la ñuy door euh, campagne njaayam gerte gi ñu leen di ñaanal ngeen am ci ndam ndax Sonacos itam réew mi ko moom abe ah, jërëjëf amin yàlla ñaan bi nangu en tout cas tey la ñu tàmbali yàlla nañ ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim ñu génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin te Sonacos gis ci gis ci gis ci boppam euh, du ñàkk ci biir campagne bi daanu jokkowaat ngir topp liggéey bi nu mu jaare ci biir taara